ñu ngi leen di jaajëf lu baax topp gi ngeen ñu topp waaye rawatina ànd bi ngeen ki nga xamante ne moom mooy sëñ Bara sëñ Bara doon na koo xamante kenn dootu na ki nga xamante moom mooy Dof Ndeye beneen bi ci topp dinañ waxtaane Sidy Diop Zénith bi ak Waly Balago Seck waaye tamit dañ ci waxtaan ak ki nga xamante ne mooy Doro mais laata loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokku internet yi sëriñ Bara maa ngi lay nuyu mm, maa ngi lay ziar di leen wax ahlan wa sahlan di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bu baax yeen site internet yi ak ñi ngeen àndal ak ñëpp di nuyu sénégalais yi ak diaspora bi ak mboolem ñuy suivre di ñu topp. Mhm. Euh, Serigne Bada waxtaan bi dañ koy doore bokk na ci Dof nday bi nga xamante ne keroog gis nga vidéo boobu def toile ci réseau yi en tant que koo xamante ne yaa ngi ci réew mi di ci wax ba nga ko gisee nan la def. waaw choqué wu rek comme tout le monde rek parce que xam nga am na loo xamante ni nii euh, du dëgg du yoon donte dafa da nga dof sax mais dof du am yenn fidi parce que fi ñu fi do bari na mais pour nga gis kuy jël paaka di jam nit ba paré def ko plaisir mu neex ci yow loolu xam nga ni c'est trop té loolu bo xolé li ko may ki euh, kenn la muy Amadou Sall hmm. waaw parce que xam nga réew mi dafa nekkul réew mo xamné kumba am nday la kumba amul nday donc euh, rawatina ku toll mel ni meloon ni Amadou Sall nga xam té lu ko neex la def daan pasar passeré alal réew mi di maye xaalisu ay 10 millions ki cent millions ki lu kenn xamut jànkat yeeg géwél yeeg ñëpp ku yuuxu mhm. mu yëkkati 1 million may la donc ngemboon dof dof ndey ba dof ndey nekkee foon doon doon def lu ko neex yàgg na def yu mel nii nga xëy na tey la kii mais yàgg na def yu mel nii mhm. donc tu vois donc may wax ne loolu nga amaana jeex na ci réew mi parce que looloo tax ñu fal joolaa beeg séeréer bi jub ak jubal mhm. waaw lépp tegu ci yoon te am naa yaakaar ne fi mu toll nii ku def dara naka sudul nonu ba dem police wala nga dem euh gendarmerie mhm. wala tribunal mhm. la la fa dugal dula fa génne lu leer moy tax nga génn mom parce que boy caaxaan nañu amuñu tiaxan kafuñu mhm. waaw kafuñu non kafuñu té dof nday fi mu toll il faut ñu teg ci yoon donte dafa dof wala dof mais il faut ñu teg ci yoon parce que li aussi bu ko buñ ko bàyyee mu jall kenen mën na ko def do ci waadu mu ci fenn est-ce japp nga ni nu ñuy bàyyi mu jall non duñ ko bàyyi mu jàll mais lii lépp di ko li ma la ki ñu ko ko teg ki ñu ko war a laaj xam nga mooy kan. mooy président Macky Sall moom mi yàqoon réew mi def nii ba neex def te du mujj fenn defoon kumba am ndey kumba amu ndey moom nañ war a interpeller moom laaj ko lii lépp ci ndoddam la. yàqu-yàqu réew mi yëpp te bëri na bëri na fi à chaque fois nga gis yu mel nii waaw. Ah. mais nekkul daf ndey dafay jàkk ni moom bandi la dafa am fit lu mu ko neex lay def ah, dara du ko ci fekk. ba tax na comme CREC mu def lu mel noonu ba pare di ci def boole ay témoignage c'est-à-dire que di filmer boppam. waaw jàpp ne day wane ni moom ban fii Sénégal moom rek moo fi bandi. waaw ah, loolu laa lay wax dafa dafa jàpp ne régime régime bee moo fi nekk ba léegi loolu la jàpp mais régime bi la nekkatu fi fi mu toll nii lii nii mu def nii il va il va le paix parce que moom tamit kii mu jam noonu nit la moom it donte euh, dafa dof wala je ne sais pas quoi mais. dafa la da ngaa jàpp ne moom daa dof. non man xaw ma parce que jàpp naa nit ku ànd ak xelam du def li quoi vraiment jël nit diko ko jam naan kaay leen filmer diko ko tiitaroo loolu pour nit ko ànd ak sagoom nit ko normal du def lolou donc tu vois donc lu ne mën ci xew ba nga mais lu wérta wér moy na yoon def liggéey ba nga xam te benen beneen yoon ku ku lu mel nii keneen du ko ñemee def ci réew mi mm-hmm. waaw mm-hmm. sànq fa nañu ci wéewu bay ci ay source mu ci melni Seneweb yeb nañ japp nañu ko euh léegi yow lan lan ngay nan ngay nan ngay jàkkaar ni comme jamono ji réew mi ñu ngi koy doxale ku nekkul ci yoon rek dañ la wara tek ci yoon non réew mi loolu lañ voté xam nga loolu mooy projet bi te loolu boo gisee ñi ngi koy doxee boo gisee Ousmane Sonko eh, Diomaye bu yàggee bu fekkee loolu bu yow tamit ñu teg la fi yoon bi waaw mais qu'importe fi mu toll nii mhm. ku maam ndey ku maamul ndey jeex na ci réew mi man bañ naa ko ba léegi damaa tuub ah di wax lu baax di def lu baax ak lu rafet waaw tooñu ma ambiance laa fi mu toll nii naa ci yooyu yëpp non si maa la wax loolu si bari nga ambiance képp koo ne man maraat di bopp mos na koo tooñ maa ngi koy baalu ak di ko jégalu naa ci yooyu Hmm. Hmm, legen nga ci taf yeek ak dagg yeek yooyu non yooyu yëpp léegi génn ci leg sama bop la nek sa bop nga ne loolu dafa leer kon ciow li nga amone yeen ci diggante ak nu koy yi mën nañu essant yi kon jeex na tàkk coow non man focus man leen ngi ci leneen maa ngi ci hmm non non non déggoo li ma la wax mais rew mi fi tolni rupture non voter quoi il faut ñun tamit ñun ñep ñu japp ci pour rew mëna avancer mëna dem ci kanam ñu japp la gaay ñu liggéey tamit mais ñi mënu ñu di liggéey paré xama mooy loolu quoi day xaw a doy waar. est-ce nekkul tàngaay bay ñëw nga xalaat ne foofu dina xaw a métti rek période bii nii nga ne xaaral ma seddal tuuti ba sedd bi ñëw ma dellu ca la ma nekkoon. wala dañ laa mos a wala dañ laa convoqué luy problème bi. ba suñ ba dafa mel ni boo fa jógee tamit est la xàmmeeti. non mais ma kay jaratul yenn yi quoi tamit. Hmm. Hmm, voilà c'est-à-dire bu ma déggee da nga doon ut porte boo xamante ni gars yi mën nañ la si xamee wala lan. non non loolu sax mais instant bi dañoo toll ci rupture liggéey liggéey nañu ko tey liggéey waaw ñun ñëpp doon liggéey quoi waaw. mais booy suñ bëri boo ne liggéey la ñuy tey boo wax liggéey ci échange ci ci lan lañ la mën a xaarandi pour suñ di ko liggéey wala mu ciy business. ah bëri na maa ngi ni doon parce que échange bi kumba amul ndey beeg yooyu noonu bu fekkee dagg na moom day mhm. leen business bi day taxaw moom mais tabaski bi maa ngi doon jaay def opération tabaski ku jaay valeur 4 millions 500 kay kooku Mm. yaa ngi contribuer ci euh, liggéeyu Sénégal quand même waaw waxtaan wax dëgg jëla en même temps que maa ngi def ay pip mm. dèjà Momo Dieng dafa war a tëgg le 29 juin fële ca Mbour Saly nga xam te ne Mouhamed Diouf Events mm. moo moo ko organisé ah grand promoteur bu mag boobu donc maa ngi nii di ci liggéey actuellement jëm nag le 29 Saly boobu di ci woo Sénégalais yëpp waaw mm-hmm. te euh, sëñ Bara mm-hmm. ñëwaat si cadre Dof Ndeye tay def nday bo mo loo koy conseil ak loo koy wax lan nga koy wax wala ñi nga xamanteni ñom ñoy ñooy woote bu bandi ci réew mi lan nga leen di wax non réew mi amul bandi dof dof lu ma fi am non amul bandi ah bon non si dama lay wax rek dof dof lu ma fi am non Sénégal dof nday du bandi mom Sénégal amul bandi non Sénégal amul bandi ay Nigéria dëkk ñag yoy ñoo am bandi mais fi amul bandi ah, japp nit jam te ko ande ak fi nak ne du bandi non du bandi day dof dof lu rek c'est-à-dire li ñu ko tamulon la quoi ñu ko tamulon la waaw ànd nek fay ànd àndoon ak Amadou Sall daan wotanteeg moom. Mhm. xam nga. Mhm. voilà amoon ginnaaw loolu la rek mais loolu jeex na léegi léegi yooyu amatul ci réew mi. amatul ci léegi ñëpp a yem. kon réew mi daal su ma ko déggee réew mi amul bandi. non amul bandi réew mi amul bandi policiers yi ñooy bandi. Hmm? ce les voyous protégés par la loi loolu tubaab yi wax. waaw ah, mais hmm? bien sûr si mhm. ñoom ñooy bandi yu am kayit ñoom lañ légaliser Sénégal amul bandi. amul bànn policiers yi ñooy seen bàyyi. kon yow xaaral nga ni woon Dof Ndeye moom day métti rek mais dañu koy jàpp. ah mais bien sûr dëgg li ma la wax. fii policiers yi ak gendarmerie foo nekk ci réew mi xam nañ ko bala ñu lay woo téléphone wala bala ñu la jënd dañu xam fi nga xam say déplacement xam fi ngay fréquenté ak lépp ba pare doo ko jublu say mbir doo man maa la wax respect bi nga jox joxoo ko policier ba tax tey nga bàyyi gendarmerie ñi nga xam ne ñooy policiers yi policier ak gendarmerie ñoo ci yem loolu loi loi la loi moo ko wax maanaam benn tubaab a ko wax hmm. c'est-à-dire bandi amul policiers yi ñooy li naan wëyu bandey baayam kon boo nee kon yow boo nee bandi policiers yi ñooy seen bàyyi. Mhm. non mais bien sûr. Sénégal Sénégal amul bandi. Sénégal yi ñooy seen bàyyi. ayca mi ngi noonu loolu benn point la boo xamante ne dañ ci doon waxtaan rek dañuy ñëw ci deuxième point bi bokk na ci jamono ji gis nañu nga doon wax naan Zénith du fees Zénith du fees te waa Zénith dem nañu. wala sax Zénith amul ndax passeport yi passeport yi dafa jeex ak dañ koo joxe. non man sama yoon nekkul ci loolu dama ne waaye am na gaa yu dem de. ah waaw mais mënta ñàkk loolu moom faaw kii kii kii waaye kii nangam moom faaw ñu dem da nga gis journaliste yi